mooy indi ndox mi fii mooy canal canal bi ñu liggéey mu jëm euh, ngëlëm moom moo fi indi ndox mi waaw bu tawee ba sewet daal lay ndox mi doo ko ñëw waaw mais buy taw moom loolu du am ndox waaw démb nag ministre bi ñëw na fi Cheikh Tidiane ñëw fi ànd ak am waaw ñu ñëw taxaw xool pour mu mos a pompe yi fi indi mais moto pompe yi fi indi woon dara faju fi dara waaw li ñu gën a ñor sax fi ne pour l'instant mooy ñi fi nekk sax nii nii ñii fii kër yi kenn dëkku fi kenn dëkkatu fi moom mais gox bii nii nii nii may waxee yow nii ndox mu ñu naan pour màggal moom amu fi waaw ñu fi gis dañ koy jaay waaw da pour nga ndox. Ah waaw si loolu moo fi ministre bi Cheikh Tidiane démb. waaw nee na oto yooyu. waaw dañ koy jaay man mii di wax yow nii laaj nañ ma ne boo fay ñu wàcce la sa bassin yoruguma xaalis. waaw mooy fayee mais jëmmi ndox mi moom ah pompe ak lépp ci am bassin bi daal ba doon taxaw jox pour mu yegg pour ndox mi mën a dem. waaw waaw fa ndox ma jógee ngërëm boobu fa la ndox ma rek la def daal suñu sonn daal lañ def moom depuis ñeenti at ba léegi ndox mi nii lay def ndox mi bu tawee ba sewet lay day wal di ñëw ngay xam ne day am fu muy jógee di ñëw ngiraane fi yëpp génn nañ. gis nga kër kër kër xal kii baa ngi nii suñ suñu sëriñ baa ngi nii màggal sax defu ko fi fee lay màggalee mbàkke lay màggale jee dafa metti moom dëgg yàlla duñu am fu jaar lii xam nga ne metti na koñ bi yëpp a génn yëpp a génn dafa metti mat laa yeeg yëpp tooy bilaa da nga leen yërëm sax ñun moom un mois moom tane na ndox mun ba mu tawee dañuy bënn fee génn ndox mi mu génn moom waaw taw yii tey li tey lii lii melul nii dañoo ne waa Sappoon ñoo ko dindi woon ba mu deñ mais tey bi mu tawaatee la mel melaat nii waaw. est-ce que am ngeen wallu bu ah? ministre bi ñëwoon na fi ministre bi ñëwoon na fi waaw Cheikh tijaan ñëwoon na fi démb wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi fiy baagante di ñëw ak Cheikh Baara Dool li Mbàkke ñoom ñëpp ñëw nañ fi wax dëgg yàlla waaw. dundee. ñun daal ñu ngi nii rek di dund ay jafe-jafe rek waaw ñu nii de am nañ ci àll bi lu mat weer ak nangam ñëwoon rek bëgg a màggal waaye gis nañ li yàlla def waaw waaye nag sant yàlla rek waaye nag metti na lool de danoo a màggal waaye gis nañ ni mel de mi nii te démb rek lañ ñëw di raxas ak defar waaye gis nañ ni yàlla suñu borom def rek yàlla noppi waaye nag sant yàlla rek nag ndax doomu xewal la sant yàlla rek waaye suñu dimbaloon ban màggal ba pare rek daal mu baax loolu rek la ñaan daal dimbale leen ñu ban màggal ba noppi rek jë du fi jëlee ndox mi rek yàlla baax mi chaque année nii lay mel. chaque année nii lay man ñeenti at ci ren at mu jot dañuy génn gis nga ni kenn wu netti loon yéen a ko gisandoo gis nga noonu néeg yëpp yëpp a matériel bi suñu matériel yëpp yàqu na waaw leen ni daal moom moom daal damaa mënut a wax <laughs> joxal sëñ Saal mu eggale kàddu gi. waaw ah ngeen gis ngeen ni ngeen ko gisee nii rek noonu la demee de doy na waar trop waaw. dañoo ñëwoon nii fan yi nag mais fan yii moom ndox mi wàññeeku woon na ba jeex tàkk moom wax dëgg yàlla gars yi jàmbar lañ mais dañoo ñëwoon nii pour raxas si nii mais gis nga ni taw bi <laughs> dañoo yeewu rek taw bi moo defal lii nii mais bu dee taw affaire bi du ñëw mais bu bu bu tawee ba pare daal ci la ndox mi di ñëwee bu baax a baax a baax waaw ak canal yi mais pour l'instant moom jeexoon na moom ba ci ba ci suba gi mais taw taw taw bi mu taw tey daal moo yokkaat affaire yi ba mu melaat waaw noonu la demee. léegi boo doon lancer appel autorité loolu leen ah ñu jàpp si rek parce que métti na trop waaw parce que quatre ans ngi nii chaque année yow nga génn sa kër doy na waar trop waaw parce que màggal Tuubaa moom ku ne xam na ne moom waaw sa kër nga mën a defee feneen foo dem tamit doo nekk à daal mooy loolu xam nga waaw moo tax bu ñu mënoon dimbal daal bu ñu màggalee fi daal si jàmm ak salaam rek loolu rek lañu dañuy liggéey moom gis nañu ñëpp sangaane moom ñu ngi leen koy dundee quoi. wax dëgg yàlla ñun moom ñoo si nekk si ndox mi di liggéey chaque année manqué na ko ba mu tak waaye xëy na dogalu yàlla si borom quoi ndax canal yi moom xëy na du gaaw a pare moom waaye nag ñoo si incha allah su lépp paree rek xëy na lépp lu ñu met lu ne rek dana baax incha allah xëy na liggéey bi xaw a yeex et puis liggéey nawet moom day xaw a day waar loolu moo tax quoi waaye ñoo ngi si ndax indi nañ matériel yëpp ndax euh, mairie bi jox nañu matériel yëpp pompe yeeg yëpp. ban balancé ko yëpp ndax saa yi moom la ñu nekk nii daa bare ma bëgg a si kaw xool ba xam ba xam lan moo war jàngoro bi ba ndox mi demul ko si la nekk nii ndax ñun moom sagane si la ñuy liggéey si ndox mi si waa commune bi quoi ndax fii moom suñu sañoon ndox mi moom dafi dégagé carrément ba ñëpp magal si jàmm ak ndax si fi la dëkk fi leen juddoo fi leen yaroo doon ay ndongoy Serigne Salim moo tax kon nag ñu moom suñ defaru du yàq daal xëy na métti na lool nag ndax ñuy woot suñ njiit suñ président bu bees mu dimbali na si lool li mu si gën a gaaw rek xeeb nañ ko quoi ndax métti na trop ndax sa gànnaaw moom say matériel day yàq ngay dund loo xam ne dafa métti trop te amoo fenn foo koy jooyee quoi te Touba damay dégg ñu noon milliards ñu fiy génn te gis ma ko taw tur la quoi te Touba dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk bu mag bu mag la te chaque année day màgg quoi moo tax Touba. vraiment luñ ko war a gën a rek war nañ ko def lool ndax Touba dafa nekk dëkk boo xam ne dëkkuwaay bu mag la quoi wax dëgg yàlla moo tax am yu bëri caaxaan yu bëri da nga si war a jëlee quoi ndax Touba dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk Ahmadou Bamba la ndax suñ Touba dafa ne defal loo xam ne ñun suñ toogee fii sax di koy wax sax mooy du jeex wallaay ci loolu moo tax ndax ñu daal suñ Touba li ñu defal daal amuñu fayam daal moo tax dëkk bi daal nu ñu si def lu ne rek dañ koy xeeb ñun ñoo xam ne ñu defuñu dara wallaay si loolu kese la moo tax képp ku ñu si mën a jàppale rek nga dimbali ni si baax te ñooy woon njiit li bàyyi ñu si kenn daal ndax Touba moom vraiment Touba moom chaque année li ñuy dundee mooy ndox mi ndax parce que fii ba Kër Maam Jaara ñu ñëpp a génn parce que ñi ba ñëwee yàggut ñu nit si ndox mi la léegi chaque année da ba tey ñoo ngi si ndax mi jeex na tàkk gis nga ni yàlla def ndox mi ñëwaat gis nga machine yaa ngi nii ba fële soo demee fii ba si tali bi yëpp ay machine lañ ko monté. wax yaa ngi tabax ah gis nga ma nii de ñàkk ku ñu dimbale daal essence bii daal sonn lañ def wax dëgg yàllam soxla nañu ku ñu dimbale lool gis nga nii koñ bi gis nga lépp daal génn nañ ñun daal ñëw ngi ñaan dimbal. ciment bi pour lan la. bi gis nga bunt bi nii. amuñ kenn ku ñu ko tabaxal di bañ ndox mi dugg. am yéenay màggale waaye gis nga li yàlla dogal. moom daal ñoo ngi ñaan ñëpp ndimbal daal lu ñu ci waaye mën a dimbalee ndox mi sonn lool euh, vraiment ñun sonn nañ ci ndox mi lool lool lool parce que jëloon nañ sax fii ci ci dëkk bi ci koñ bi am naa ay xale yu fi nekk quoi mais pour ñu am garawaay mayoon naa leen ay cinq cinq cabio mais lu leen indil moom mooy problème bi ndax amul doole parce que à tout le temps ren moom daa yokk soit ban ban liee télé bi noonu bañ defaree télé bi daa yokk lool yokk na trop mais vraiment euh, bëgg nañ ko ñu si jàppale lool ndaxte pour l'instant yi fii bon moment bii ñu toll saret yi fi doon daa jaar prêtu magal mais instant bi nii saret mu mënatuñ fee jaar na dañuy teggi l'autre l'autre chose nag ku ñu si jàppale ñu jël bu ñu mayoon ay camion suuf wala xeer ñoom maase ñu am migenement loolu dinañ jël ndax màggal màggal yi boobaa du ñu arrangé ñun kese dina arange ci biir borom saret yi ak borom oto yi ndax fi boo xoolee route bi nii moo jëm presque ba ancien garage kon bu ñu mënoon a jàppale ci loolu dañuy jël parce que pour l'instant nii koñ sonal lool lool lool sax ndox mi day dem benn instant day dugg ci biir kër yi boobu bu yàggee kër yi lay nangu te bu nangee kër yi am moment ñuy génn kon dañuy génn bu nangee kër yi dañuy génn boo xoolee kër yi au moins teg nañ ay paie pour bu barki démb rek la nga jafar yàggul dara ndox mi day dugg bi ci kër gi kon loolu noonu ki ñu si jàppale vraiment ñuy jël. kon tali bi waaw waaw waaw inondation bi daal ci cadre tali bi la ndax boo xoolee route benee tali bi bu ñu ko defaree route boobu noonu daa xaw a xóot ba ñu defaree woon tali bi foofu noonu dañu war a mën a seen ay xeer wala ndox mais ndox boobu noonu mooy daw di ñëw ndox boobu moom mooy daw di ñëw comme moom mooy daw di ñëw nag lu ko lu ko mën a lu ko mën a kii loolu ndox ndox moom moo koy def ndox léegi comme comme loolu bu ñu jëlee ay sarti xeer wala sarti suuf. dañ ci mën a dañ ci mën a lii bi mën a jàll mais au moins tali bi moom DG la quoi. lii nag du compétence su mairie am ci taxawaay quand même. non mairie am nañ ci taxawaay mairie am nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax mais tout le temps Touba moom ah, tout le temps Touba kanam daal la ñuy wax ñun ndax ñoom ñooy def ah, tout le temps ñooy xool di sacrifier di xool mbedd yi di defar ndax mbedd bi nee suñu gannaaw ñoom ñoo ko defar yowul dara. comme 30 ba lañ la lay waaw Touba Ca Kanam ñoo ko defar kon ñoom bu ñu mayee ñu jël mairie tamit bu ñu mayee ñu jël waaw. merci ndox mi moom bari na trop bu tawee ba pare moom fii yëpp ndox lay doon wax dëgg yàlla moom ku ñu siy jàppale woon tamit ñuy jël de ndax ndox mi moom bari na day sonal nit ñi boo paree pour nga dem boutique ba sax problème lay doon. Mhm. ndox mi bari na trop wax dëgg yàlla ku ñu fi defaloon ay canal daal moom. ndox mi mën a dem koñ yi si ginnaaw yëpp tamit noonu lay mel nekkul fii kase bari na de moom ci diggante bi. Mhm. autorité Touba yi di am taxawaay ngir. <laughs> ah wax dëgg yàlla gisaguñ leen de moom ñu ñëw fii def fi lii xanaa daaw la xaw ma daaw jeg sëkkoon nañ fi waa Touba si kanam mais boobu ba tey de moom kenn ñëwaatu fi di lii. Mhm. Ah, léegi boo doon leen lancer benn message. xanaa ñu jàppale ñu si ndox mi rek pour mu mën fee jógee ñu defaral ñu fi ay canal si tali bi ndax ndox mi yëpp man faa dem. màggal gi période màggal bii ak ndox mi nii mu mel gis ngeen ko te fois heure fu tawee nii lay demee man nag xaw naa fee yàgg li ma gis nii daal mooy tali bi ñu def fii sëkk ko ba mu kawee te amul canal bu ko defee ndox bu taw yi day déverser wu dugg ci koñ bi daana kii nii waaye ni mel nii moom c'est la première fois mu mel ko moo tax ma jàpp ne sëkk bi nit ñi di def moom du solution. ab dëkk dañ koy defal ay caniveau yoo xam ne bu tawee ndox mi jàll waaye wax dëgg yàlla population yi yëpp sonn nañ ci ndox mi ndax gis nga boutique yi fii nii sax pour ñu dem fi da ngay jaar ci ndox yi ñu demee noonu waaw loolu daal lañ bëggoon ku ñu ci dimbali fexe ba ndox mi moom ñu wut si solution waaw loolu daal moo doon suñu suñu jàngoon. milliards xam ne nii yëpp dugal nañ ko ci dëkk bi parce que dañuy ñu naan. te rek inondation yu mel ni xam nga milliards yooyu it damay dama déglu sëñ Cheikh Thioro wax lu am solo gis nga milliards yi man damay toog ba yàgg ma ne Macky Sall li mu fi def ci ay milliards liñ ne def na ko fi man du ma ko weddi mais nag jëmul ci destination bu baax man loolu laa gëm li ma gëm milliards yooyu ñu def peut-être eggul fa mu war a yegg. waaw mais li ñu wax ci ay milliards li ko gars yi di ko jëndoon ay serviette napp ko ci ndox mi sax ndox do inondation dootul am man loolu mooy li ma gis ndax 43 milliards am par des centaines de des dizaines de milliards fii ba pare bu tawee même pas 100 mètres ci jumaa yi sax muy am inondation loolu moom c'est anormal ko waaw.